lu doy doy waar moo am ca région bu Casamance mu mel ni nawet ba fa jot a jaar xaw ne leen ay jafe-jafe lu ci mel ni lycée bu Marsassoum am nañ jafe-jafe lool ngir taw ba fa jot a jaar ak ngelaw la daal di daaneel seen école yi ak seen kër yi nga xam ni moo nekk ci dëkk ba ak euh, sem bu kande Kandé Ziguinchor ñoom it seen bataana waaye am nañ jafe-jafe pour am fañ jàngee ñu ciy sàkku ndimbal ci ñi nga xam ni ñoo féete ci nguur gi ngir ñu mën leen a rawatina ubbitam école bi nga xam ni jàpp nañ date bi muy le 25 kon Euh, xibaar yaa nekk noonu sem bu jeeba bi njoona ñoom it am nañ jafe-jafe ndax taw ba dafa ñëw ak ngelaw li teggi ardoise école bi daa dee daaneel miir yi kon mu mel ni ñoo ko gisandoo fii la ndar képpee xibaar yi ba beneen yoon incha allah